doy ñu sëriñ doy nga nu kiiraay aa yaa raama soora maalik sunu baay Mansoor mu tawwilanu umra kum mu diima majdikum mu ànd mu saaxiixan jismakum bijaahi Yaasin ñu ngi fii ci sunu ëttu baay góor gi ëmban mbay Maodo sunu maam waaye toog ak sunu baay sunu sëriñ sunu soppe sunu baay mun Mansour euh, ñaan yàlla yàlla guddal fanam yàlla may ko wér yàlla dooli ko sutura ak sak euh, maa ngi wax sànq ñu ngi ñëw fekk fi sunu mag yu tedd gi sunu nijaay alxaaji Japar Mbay di soppe di xarit di àndandoo di wéttal yàlla ko yàlla yàggal ci kanamu góor gi fekk fi sunu mag sunu nijaay Cheikh Salim Mouhamadul Mansour Mbaye bële nga xam ni daanaka ngoon gi bokk na ci li nga xam ni ay tànk looloo tax ñu yëg si ñëw ci fii ci bërëb bi ñi nga ànd ak sunu rakk sunu xarit al oustaz Omar Silla bu baax bi nga xam ne moo tëgg taatagal liggéey bu réy bii ñu indi tey ànd ak sunu rak El Hadj Ngañ Demba Guèye ànd ak sunu rak El Hadj Mouhamed oustaz Mouhamed Ndiouk ànd ak sunu rak Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Diouf ñëw ci xurum bi nga xam ne xurumu Maliki la toog fii indi liggéey bu rëy bi nga xam ni El Hadji Omar moo ko liggéey lalu ci ay weer wala ay at pour liggéey liggéey bu rëy bii bi mu ko liggéey ba pare nag bindi ko ci nitu yàlla góoru yàlla gu tedd gi nekkoon secrétaire u baayam El Hadji Mansour bi ko wanee kilifa yi ci ndigalu xalifa bi Cheikh Seydi Boubacar Ibn El Hadji Mansour dan ne bala ñu ko yóbbu ci kenn wala ñu ko jox kenn gannaaw bu mu ci defee exposition woo borom xam yi ñu toog tatagal livre bi càmbar ko xool ko lijjanti ko ba mu leer ñu ne doon tam mën ta dajal mbindu alaaji Mansour li mu ci wax daanaka li ci ëpp mi ci biir livre bi ñu ne nag ba nañu koo yóbbu ci kenn nan daje ñun ñëpp ànd indi ko kër maam Oumar Mbaye Maodo te ko ci sunu loxo baay sunu soppe sunu maam sunu xarit sunu kilifa sunu lépp muy président de tous les communicateurs traditionnels euh, sunu maam sunu xarit El Hadji Mansour Mbaye ñëw jox ko livre yi wax ko ni ko góor gii ñu ci tàgg muy maam El Hadji Mansour li tax ñu indi ko tey muy yowmal jumaat ci waxtu yi ñu ko indi nag ni démb la woon anniversaire u maam Serigne Babacar radiyallahu taala anhu dimanche di anniversaire u maam Cheikh al Xawmi Alaaji Mansour radiyallahu ñu ñëw ci turu Parcelles Assainies yëpp ñëw ci turu ki nga xamante ni mooy sunu mag sunu xarit sunu nijaay alhaaji Amadou Ba waaye nu ci turu sunu jigéen sunu yaay Adja Khady Diop Sow muy porte-parole réseau andi liggéey ñu ñëw ànd ak alhaaji Omar Silla jox góor gi livre yu tedd yi nga xam ne Omar dina ci ñëw léegi faram-fàcce ko ñëw jox ko góor gi ñaan yàlla yal na yàlla guddal fanam wax naa léegi lépp lu maam amoon Mbaye Maodo amoon maam El Hadji Mansour amoon ko maam Cheikh El Hadji amoon ko xadra Malick yi amoon ko barke boobu ak jàmm jooju xéewal yooyu guddo at yeeg jàmm yeeg sutura yal na ko yàlla sotti ci góor gi ñu tatagal ko nammanti ko moom bég lool ci dendanteeg moom ci waxtu wi bég lool ci gis bin ko gis bég lool ci taxaw bii ñu taxaw ci wetam di jéggulu toogaay bi ñu toog ci kawam ak wax yi ñu yëkkati ci kanamam wax ni euh, kaddu yi gudd gàtt daal mooy papa maam soppe say livre ngi noonu orientation yow yaa koy jox loon ca wax lan cay def loon ci digal lan cay def ndax tey ñu ngi toog daanaka ci kanamu xalifa bi ndax yaay Cheikh Sidi Bou Bakar Cheikh Sidi Bou mooy yow ca bu nu toogee yow toog loon nanu umma islam bi yëpp waa kër baytu rasul yëpp toog nanu moom kon yooyu doon kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullah kon jox El Hadj Omar Sylla mu nuyoo moom it def présentation Omar bismillah maam Mansour du ma papa waaye maam laay wax ndax maam nga ci man maa ngi jël nuyoo bi gën a tedd di ko jëmale ci sa jëmm ju tedd ji te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di sant yàlla ci toog gi ma toog ci kaw waaye di jéggulu yi sam sax laay wax toog gi ma toog ci kaw di sant sama mbokk yu baax yi ma àndal bàyyi ko parcel bëggoon naa fee ñëw lu jiitu tey tey suba rek maa ngi déggante sama papa Abdou Aziz mbay maam faama mu ne ma mi ngi Tiwaawan waaye su ma ko fi bàyyee bu ñëwee dana ci jot mu wax ci wax ju rafet téere bi nga xam ne nag maa ngi ko doon bind du ma ne sax téere waaye étude la woon ñu ko doon def ci maam Alaaji man murit laa kër Serigne murit laa laa yaroo sama baay murit la sama yaay tijaan la kon man doomi murit ak tijaan la sama way jur sama way sama maam bi jur sama yaay Alaaji Moustapha Diop moo doon sëriñam Alaaji Abdu Joxaane mi ngi dëkkoon meew na kan yàlla dogal Alaaji Mansour dama ko mos a sopp boobu maa ngi jàng ci daara ji maa ngi jàng ci Kawlax daara ji Mansour Ñang ca Jalañ boobu maa ngi ko yàgg a sopp boobu nag maa ngi ci daara ji di jàng may mébét ne bis bu yàlla dogalee sama xam-xam toll fu fenn fi mam Maam Mansour foofu ma gësu ci moom bi ma gëstoo nag ba gis ne ndeke mbokk la ak maam Maaram Mbàkke ma ne ah kon maam Mansour war naa mën a gën a góorgóorlu gëstu ci moom ngir lan dama gëm na am na génération buy ñëw ni mag ñi bokkee woon war nañ koo xam rawatina diggante maam El Hadj Mansour ak Cheikh Amadou Bamba radiyallahu anhu ci biir gëstu bi ma gis ne maam Maaram Mbacke moo jur Thierno Farimata Thierno Farimata mi mu tuddee maam Masamba Thiam mi ko jàngal xam-xam te jàngal ñu bari ci réew mi. Ceerno Farimata moomu moo jur xari maam ngañ xari ñang ngañ xari ngañ xari ñang jur soxna Sofiyatu ñang mu jur maam alxaaji Mansuur mi kon mook Sëriñ dañoo bokk lépp nga jël ko ci Jolof mën koo jàngat ndax Ceerno Farimata moomu moo jur Mati Joosi Mati Joosi moo jur euh, soxna Joosi Sekk soxna Joosi Sekk moo jur Mati Joosi mu jur maam Ousmane mi jur Cheikh Alxaaji Malik Si kon ma gis ne sotti ci ka sotti ci la ak def ci beneen bi ma gën a motiver ci gëstu ci maam El Hadj Mansour radiyallahu taala anhu damay waxtaan ak borom xam-xam bu mag muy Serigne Mbacke Abdourahman mu ne ma lim daan ñëw Touba maam El Hadj Abdou Aziz sax da baax mën nga wax ne ci moom la ko jëlee ku wëllëre woon la ak Cheikh Mouhamadul Moustapha wëllëre woon la ak sëriñ Baara. ku daan dox tànki jàmm la ci réew mi diggante Tiwaawan ak yeneen kër kilifa diine yi ma ne mag mu mel nii Sénégal am ko te ba tey gisuñ ko ci suñu système éducatif jaaru na ñun ñi nga xam ne yàlla jox nañu tuuti ak xam-xam ñu gëstu ci ñu mel nii présenté ko jeunesse bi di ñëw ma gis ne borom xam-xam la bu bu bu nëbb ba génn dem te kenn xamu ko loolu gis naa ko ci moom ci biir téere bi indi nañ ci itam mbooleem xasaayit yi nga xam ne def nañ ko ci moom wala boog li ci li ci li ci ëpp solo maa ngi fàttaliku rek boo xam ne Serigne Cheikh Tidiane si maa ngi ko dégg woon ci Serigne Maodo bu Cheikh El Hadj Abdoulaye Dabakh boo xam ne Serigne Cheikh moo ko defoon ci moom booy jàng xaside gi da nga naan ndax kii ci way juróom la ko def wala ci koy jàngal la ko def wala ci kum sopp la ko def doo xam ci kan la ko def mi ngi naan ko ma baalu di ghadabin alayka xasuudi id ma utiita bi mansabin mahmuudi aw fayta ahdaka lil xalifati baadama qad shaana gayruka min dhawi taqlidi madhan wa dhamman qad sami'ta walam taku qattu bi musqin qawlatan li xaquudi anta fi lbadli kamal xaya wa bi xikmatin kal bahri id fi lxilmi kal jalmuudi loolu sëriñ Cheikh Tidiane si moo ko bindoon ci maam alxaaji Mansour daf ne ko yow bàyyi maa baalu di gadabin lan moo waral meruk kenn ci yow koo xam ne defoo ko dara koo xam ne dafa jekk-jekk rek mere la wala mu soxore la yow yow Cheikh alxaaji kooku lu ko dal ndax xelam dafa dafa wëlbatiku wala daa gisul li ne ci yow ndax isma uti tabi mansabin mahmoud yi mboolem luy cër te yàlla di ko gërëm yàlla jox jox na la ko mooy almaqaamul mahmoud te aw fayta ahdaka mbooleem loo xam ne lu la waroon la sa diggante ak sa mbokk yi yow daal Cheikh El Hadj Mansour mbooleem loo xam ne lu la waroon sa diggante ak sa mbokk yi matal nga ko te nag maa ngi lay misaal yow booy joxe yaa raw vague buy jugee ci géej di ñëw anta fil barli kamal xaya noonu nga rawee ci joxe noonu nga gën a nooyee ñëpp anta fi wa fil xilmi kal jalmuudi xeer wiñ naan jalmuut yow si alxaaji Mansour yaa ko gën a nooy indi nañ ci biir it xasida bay alxaaji Kebe bi nga xam ne moom la ko woyoon journaaka journaaka yaa Mansuuru yaa sanadi yaa bahjata diini yaa mawal masakini indi nañ ko nga xam ne mooy way juru Abdou Aziz Kebe mi ngeen xam te nekk ci commission pèlerinage nekkoon góor gu sopp Baye man suur booy liir xasida gi eh, indi nañ ko ci biir eh, biir xasida gi ndax mag ñooñu man dama am yéene ci sama dund incha allahu rabbi gëstu leen wa wax ci ñoom sama kemtalaayal xam-xam ak ñi nga xam ne fekkee nañ seen jamono maa ngi la ciy sàkku sa sa disponibilité lu lu ma ci am rek danaa ko jël ku mel ne imam Saybatu Fall bëgg naa bind ci moom ku mel ne Baye Laaji Kebe mii ma tudd bëgg naa bind ci moom parce que ñooñu ay mag lañ yoo xam ne non seulement ci gàmmu rek lañ leen di dégg ku mel ne Baye Laaji Mansour liñ gën a miin ci moom mooy góor ga ca gannaaw baayam dëgg la loolu dëgg la waaye pour man li na ci moom sur le plan intellectuel war nañ koo mën a génne livre bi itam bind nañ ko ci en arabe ndax man jàngalekatu arabe la waaye Serigne Sam Mbacké professeur nga xam ne baayam moo doon jiite ci Ilimani Touba Serigne Guédé moo ko war a en français loolu daal papa maa ngi jégalu ci kàddu yi amaana li ne ci xol bi yëpp mënuma ko génne ndax bég wax dëgg yàlla ndax tey laa mës a toog jàkkaarloog yow ci bi rek laa doon gis yàgg laa gis ci sa taxawaay ci réew mi ñëpp jox la cër muy Touba muy Tiwaawan muy fi mën a doon yàlla yàgg cër boobu nag yàllaa koy joxe innal fadla bi yadillaahi yutihi man yasha mhm. yàllaay joxe cër te yàlla moo la ko jox réew mi déglu la jox la cër loolu du lu ñuy sàkkul nit du sàkkul boppam du yàlla fàggul nit la yàlla na yàgg yàlla na leen yàlla bàyyi ci kanamu réew mi sa doom jële toog muy Pape babakar daje nañ ñaari yoon bi Amadou Ba di indi xaalis bi ci jumaa unité 13 keroog ñoo toog imam Bousso ak Serigne Modou Gueye ak Baye Koso Ndiaye ndax man su ma kër ak jumaa ji ñoo jàkkaarloo daje nañ fa ñaari yoon yi nga fa ñëw yëpp keroog maa yow ñoo fa daje maa ngi fàttaliku baax kàddu ya nga fa waxoon ngay nit ku baax wax dëgg yàlla tey ji lañ yàlla nañ gisewaat yeneen gise yu gën a neex yi yu gën a rafet yi papa daal ñu ngi lay sant di la gërëm mënuñoo taalif ci maam man Mansour fii ci réew mi livre bi nga koy dégg te ñëwuñ ci jox la sa wàll dañ ko yóbbante dañuy ñëw ba suñu bopp jox la ko di la ñaan nga ñaanal ñu suñu mébét ci mag ñi yàlla àggale ko yow it ñu ngi lay ñaanal yàlla bàyyi la fi in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulilahi rabbil alamin euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Euh, mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci waxtu wu tedd bii ñu nekk muy asrul jumaati waaye ci ëtt bu sell bii ñu nekk muy xadara maulana cheikh Mouhamadul Mansour euh, Mbaye fa tabaarakallahu di doom ci sunu maam ëmbët may Maodo. fa tabarakallahu mu alaaji Mansour mu Seydil Hadj Malick euh, maam ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di bég lool ci gisante bi ñu gisante ak yow ndax Seyduna Muhammad dafa waxoon ni bu ngeen bëggee xam kan mooy sangu gaa yi ci biir gaa ñi nee na bu ngeen ko bëggee xam mooy ki nekk ci seen service di wax ci ñoom lu baax di def ci ñoom lu baax moo di sayyidul qawmi xaadimuhum euh, mu nekk benn xeer bu jam ñaari picc turandoom moom la ñu bàkke mujibal qawmi turandoom moom la ñu bàkke cheyxul qawmi waaye turandoom moom la ñu bàkke sayidul qawmi alaaji kebe bi nga wax bàyyi maam alaaji kebe mi nga tudd léegi tudd na ko ci nuunu ya bi mu def ci moom ci baxaru basit ne ko alaaji Mansour euh, gaa yi xamuñu la waaye gaa yi xam nañ la xam nañ ni yaay tawdal jalalati ci lan ne sabran qalbukum salima yaa mujibal qawmi xale yi moom la ñuy naan bal qawmi bal qawmi du arab mujibal qawmi ki yéem nitu yàlla yi nga xam ni yegg nañ ci yàlla sa turandoo moo yéem nitu yàlla yi yegg ci yàlla Cheikh Hadj Mouhamadul Mansour waaye mu ne yaa yéem nitu yàlla yi fare penku ak yi fare sow ña ca weex ci der ak ña ñuul ci der ñëpp yow Cheikh Hadj Mouhamadul Mansour yaa leen yéem yow borom ñaari kaale yi Oustaz Sylla ahsanta yaa baax yaa gore yaa bëgg lu baax waaye nag ji nga mbaax ci suufus mbaax euh, jëflante nga mbaax ñu ko jar waxuma bu ko xadara maliki yi jotul woon sax laa wax nga yem ci bàyyi la ji Mansour Mbaye mii incha allahu rabbi li nga ci bëgg ci réussite ak ci ci barke yàlla dana ko def ndax barke Alaaji Mansuur ko topp nii kaar ba mu toog nii yàlla na ko yàlla dolli dinaa dinaay dégg ci moom mu di ko nettali di ko sante yàlla naan sëñ Babacar Si Mansour sa bàyyi moo waxoon bis ni ki tey bis boo génn bis ba ngay euh, euh, dëgg ma la koy dàq kooku mu am ko ci barke Alaaji Mansuur te ñun ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci ëttu yenent bi di tagg rasulullahi subaa ngoon gu guddeeg bëccëg ñun day am na am na lu alaaji Mansour bay jeexital ci ñun am na lu mu bàyyi ci ñun ci cofeel bu ñu jëlee ci moom ci cofeelam ci yonent bi parce que ba muy dem ni xaramayni ni di jël tànkam bu tedd bii di ko teg masjidu rasul 1944 mu jàkkaarloog raw du ba ca bi Medinatul war teg tànku nday jooram ne bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah allahuma axfir li abwaaba rahmatika sànni ñaari rakka tahiyatul masjid gersu jàkkaarloog pavillon leer bi bi ci Medina jàkkaarloog turandoom sayduna muhammad naan ko falamma danaw na min sanal badri wanjala lana sitru hatta zalamil wujdi ma biya Baay Alxaaji Mansour Mbaye sa turandoo Alaaji Mansour moo tiim turandoom Mouhamadul Mansour ma ca Medina di ko tagg moom rasulullahi Alhaji Mansour nee na keroog bi ma demee di ziyaar Seydouna Mouhamad lim ma gan ganalee moom Seydouna Mouhamad dafa dafa puus kiiraay yi dox digganteem ak euh, jaam jaam yëpp ndax képp koo gis ci àddina soixante-dix mille kiiraa yu leer rideau leer moo dox sa ak yonent bi pour nga di ko gis nee na Alaaji Mansour nee na bi ma demee ba jàkkaarloog sama turandoo ak sama cofeel ak sama toroxlu ak li ma Alaaji Malick jàngal ci yonent bi nee na yëg doomi Seydil Alaaji Malick mu ngi ci rawdu bi nee na mu puus kiiraa yi moo ma gàttandul boppam keroog bi ma ko gisee laa ne ko huwa dawxatul uzma ne ko yow Seyduna Muhammad ndeke yoo yow mi yàlla wax ci alquran naan huwa alladi arsala rasulahu bilhude wa diinil xaqi li yudhirahu d diini kullihi wa kafi billahi shahidan ndekete yoo yaay rasulun yow la yàlla yónni hamidun yow la yàlla sant yow sayduna muhammad hamidun yow la yow yaay santa koonu yàlla bi yow sayduna muhammad yow la ñëpp sant asamaan ak suuf maam Mansour nee na ko nabiyun yow yow ku yàlla dee nga waaye sama ku kawe nga fawqa sima kay ni ñaari biddéew yi nga xam ni ñoo sut ci yi yaa leen sut yow sayduna muhammad yaay garabu ndànjantaan gi nga xam ni ëllëg yowmal qiyaam ci la ñuy kerloo ci sa ker yow rasulullahi góor gi daan taxaw di bind di toog di bind di tëdd di bind jàkkaarloog turandoom Seyduna Muhammad ne ko billahi yow yaay far bakkaar yi ku la sopp texe ku la bëgg texe yow Seyduna Muhammad yaay daytal bi ngi ci tedd nga yow Seyduna Muhammad yaay daytal bi ci puukare yow rasulullahi yaay daytal bi ci am càng yow Seyduna Muhammad fa ñuy daaneele mu ne ko huwal murtaja ay nabi billahi yow la nu yaakaar kañ yow ma ñe chiibun nawasiya yow ma ne jaalul wildaanu chiiban assamaau munfatirun bihi kaana waaduhu mafuulan yàlla nee na yowmal qiyaam da nga gis liir bu dekki ba jaaw kon waxuma la mag mu dekki mu ne ko bis bi nga xam ne càmbarka yëpp ay weex ndax tiit ci bisu yowmal qiyaam mu ne ko huwal murtaja yow Seyduna Muhammad man doomi Alaaji Maalik gëm naa ni li sama baay wax ci yow yëpp dëgg la yow la nu fa yaakaar yaay sunu yaay sunu euh, ndabu ndabal ñam boo tuuroo ñëpp dañu kon nag bu ko defee euh, euh, Baye Mansour dañu bëggoon rek barkeelu ci yonent bi ngir yàlla barke lal nu lii nuy def Mak Ngagne mii ak Cheikh Diouf ak suñu mbokk mii ak Abdourahmane Gueye mii communicateur traditionnel di sa doom di sa sët di sa waaw di di koo xam ne léeg-léeg sax da lay roy ma ne ko tee ngaa noppi tee ngaa toog te xam ni góor gi moom roy ko yombul ku caalaat ku caa daal la gis mu di ko mu di léeg-léeg roy ko ba tëdd ci suuf fa tabaarakallaahu góor gi yàlla na yàlla bay la fi yàlla na nga dundaat ak ñun juróom fukki at mbaa téeméer ci darajey Alaaji ñu ngi koy ñaan sag gi di yokk wér gi di yokk mën gi di yokk barke bi di yokk waaye wërsëg wi di yokk ndax loo am bokk nga ko jaam yàlla yi kon nag Baye El Hadj Mansour jërëjëf yàlla na yàlla fay la mbay oustaz ahsanta yàlla yàlla fay la yiw yàlla na yàlla barkeel la euh, barke ba ngeen